بهمته وكل سالم نبي يا بنا بشر خليلك ربي بهمته وكل سالم زاد الإله بيت الإله إلى صراحب الإله وابن النبي الإله سورا زاد إلى المدينة المنورة محمد صلى الله عليه وسلم sopp Seydina Muhammad musalliman badal lana laaw Muhammadul fardul yafaa tasira wafaaqa jamal wa adaaya mufnaya darajatul muxtaari bil mursili bi atilaw darajaat rusuli kullu nabi wa rasul yatbaa هو المتبع أمدنا الماء إماما ساء على صبي سيدنا محمد أمدنا الماء ما ساء ولي سوانا ساء من أساء لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا ليمكن جمال يسبي فالدرائي ونرجو الدين سنة وخير من خدمة المتحصنة لم ينفكني المطعم بالإرهاب رضتي والبيت زاد وإلى لم ينفكني المطعم بالإرهاب من كريم آباؤه كرماء نسب تحسب الغلا بيولاه قلدتها نجومها جوزاء هابذا إغدى زودة وفقار أنت فيه اليتيمة الأسماء ومحيا كشمس من كمديء أسفيرا عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان لي لسرور بيومه وصهاء ليلة المولد الذي كان لدي لسرور بيومه وصهاء كسر الهواتف أنقى وليد المصطفى وهاق الأناء وتداها إيوان كسرى ولولا آيات منك ما تدعى البناء وقدا كل بيت نار وفيه قربة من قمودها وبلاء وهيون للموسيقار فهل كان لنيران بها إطفاء مولد كان منه فيه تعليق ري وبال عليهم ووباء فهنيئا به لآل آمنة فات للذي شرفت به حواء من للأنام ناروا أو أن هذه نفساء يومنا لا بوته إمنة من فخار ما لم تنله نساء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما مخرق والخاتم لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى القدر والمقدار العظيم يا الله يا من لا إله خيره يا من يديني دوام من خيره يا الله يا من لا إله خيره يا من يديني دوام من خيره سلم وسلم سرمدا يا رحمن على الذي تجب الأسمان سيدنا محمد والآل وصحبه ولسان صالح الرحيم المالك الخدوس لك لا يسكر والتحديث أنت سلام مؤمن المهيمن أدعو بها الجبار يا متكبر الله متكبر خالق يا بار يا مسمر خفار يا خار يا واب يا مله تبصير والإرهاب رزاق يا فتاه يا حليم يا خير من يهلو مظلوم مخيط يا مهي يا مؤمن أنت الذي تهي برايا وتمن يا خيو يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مسروب هبد هد يا واحد يا سمد يا خاطر يا من كون رب البرايا صدري وبالمقدم وبالمؤخر أول يا آخر أنت صائر الباطن الذي له مصائر وإنك الوالي الذي توالي والمتالي مسير الله والي يا بر يا تواب يا منتقم كلك لي أزفر أنتقم وإنك الغفور والرؤوف يا خير من يهل مصو يا مالك الملك يا مالك الملك نانيا بدفني ñu màggal yàlla sunu borom يا مالك الملك يا مالك الملك لسن مرامي لدى الكرام والكرام يا مالك الملك لسد المرامي ليس الجلال والإكرام مقصد يا جميع يا هني يا من أرتجي قبولا سيئا أنت الذي خرسب بالخط لي من شفته من الورى يا مخني يا من بقلب دواما خانو وأتني عن الأذى يمان يغرقني البلاء والإدرار وكل ما يسوء قلبي الدار يا من يجيئني هنا المنافع وفي قدر بفلي يا نافع يا من فادي أبدا يا نور بكوني لأبدا يا نور يا من اعترف بالجهادي وارتجي فوق المنايا هادي يا من علي سكر ببدي على ايام سامي يا بدي يا من يسمني الى سباخي لزلزلني بيا باخي يا من لدي كسب كل وارث كونك لي كونك لي سائرة اليوارز ومنك يا ديا قلبي ترسيد ألام وصفاء يا رسيد ليسلمني كتابك المصبور بفرك الرسيم يا صبور fi axsani axwaali wa axlaaqi waqtina karaa'im al amwaali taduumu fil ayyaami wal ayaami waqtina maxaalid al xayraati fi jumlatil awqaati wassaati wa faxlana yaa rabbi fi saati وفي سراب الأمة الأيام ولهم في زاغة الخدور وأسواره ونجنا من الوباء الآتي من الملوك ومن البخات ونجنا من فتنة الملوك ومن تزايا سنة الفوق ñëpp def ni ñu màggal sidina muhammad rasulullah yow soo xalamee sunu maam ibrahima bam laata am alilan ak alima noonu yaa ko génne muy bay fii ba yàlla rendiloo ko ismaila ñu dellu taalal ko ca teenub namroot def ko ca biir yàlla saral xolam ba barke borom tuba tuba yëpp jéggi def jàmm ak salaam musul ñu si musiba ak fitna ak balaa si barke kalimaatullah al xusna si barke muhammad alayhi salaam wa alihi tahirin assalaamu aleykum ya يقدس على الجميع الملك الملوك سرمدي عزلي yal na yàlla guddal fanu suñu xarit suñu cheikh Gora Seye ak mboolem ñu fi teew ak yërëm suñuy waajur ñi fi jóge assalaamu aleykum minni salaam من الله ما بقيت وبقي الليل والنهار عليكم سلام من الله ما بقيت وبقي الليل والنهار بأسمائه الحسنى خلق الإنسان والجان بأسماء الحسنى خلق الدنيا تمام بأسماء الحسنى سبح الطيور في الفدا بأسماء بأسماء في البحار بأسماء بأسمائه الحسنى جعل الجنة للمتقين بأسمائه الحسنى أدخل الإنسان في الجنة الفردوس آمين يا رب العالمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه آمين يا رب في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا طويلا, طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ñun ñëpp ñu wax اللهم صل على محمد وآل محمد ñu dem اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم خافظ على شيخنا غورسي وارزقه والجميع بحق محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله يا رحمن يا رحيم ربي بما يسرون لسان قد فجر جاء ربي بما يسرى أسان خاف فجاء بجاء أفضل من لله خالجاء وساني اليومان رنسات أن ملاك البراء نجيت وجل ومن وكرمني تكريمي من داما يغني عن سري ما خرا خرا خدومة المصافى عن كل ما زنات ورد الأمين خلقا يا من جادهم بلاد يا من جعل الخواد ارهم جميع الوارى ديا رنا ما تما خدنا وقلب من درر بجاي أفضل من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 طرق الخيرات والسلام الأبدي المؤدية إلى جنة الخالدة وجعل الشر كله في النوائي الإسلامية أو جعل النوائي الإسلامية كلها طرق الشرور والمضرات المهلكة المهدية إلى النيران الخالدة wasalaatu wasalaam ala sayyidina wa mawlaana Muhammad wa ala aalihi wa ashaabihi wa taabi'iina lahum bi imaanin ilaa yawmi ddiin. ixwatul iimaan aquulu lakum asalaamu aleykum wa rahmatullah. mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyo bi mboolem kilifay diine yi ci réew mi ci kër gu nekk di leen nuyoo ci délégation yi nga xam ni ñoom lañu fi yabal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu guddal fan yi dolli wér yi nuy nuyu mbooloo mi ñépp nag di leen jaarale nuyoo bi ci tuuru Serigne Gora mi nga xam ni moom la yàlla dogal ci moom nu laje fii ci ab wooteem wuyu si ko di ko ñaanal bu baax moom sëriñ Serigne a Seye ak muuma bi nga xam ni ñoom la bokkal liggéey bi te moom mu nekk ca bopp ba muy serviteur de l'islam nuy ñaan lépp luñ fi ñaan yàlla na yàlla nangu lépp alxuraan diñ doon jàngat lépp it yàlla na yàlla barkeel lépp gannaaw nangu bi ñuy gërëm ñépp di leen sante bu baax a baax xam naa waxtaan wi naran na laal ñaari mawdoa dikrullah ak asmaullahi taala alxusna lépp rek benn la waaye foofu lañu bëgg na séddale wax yépp ndax mbooloo mi sëriñ góora mi nga xam ni moo ko jiite tur wi nga xam ni moom la am ndigal tudde ko mbooloo mi mooy juróom-ñeent fukki turi suñ borom yi ak juróom-ñeent bu nu delloo ci alquran sunu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ni walillahi al asmaa wal xusna fad'u biha wa daru lazina yuliduuna fi asmaihi sa na ma kaanu yaamaluun maa nga ci surtu araf laayey téeméer ak juróom-ñett fukk mu ne yàlla am na ay tur yu rafet na ngeen ko ci woo na ngeen ko ci ñaan waaye na ngeen bàyyi ñi nga xam ni dañuy yàq turi yàlla ya ndax lépp luñ ca jëf ci ak yàq des na leen ko fay kon xool nga bu ñu xoolee aaya bi te jàngat ko bu baax suñu borom danoo yamloo ci nu ñaan ci ay turam waaye ñi jalgati turi yàlla ba noppi tuumal yàlla ni turu yàlla la ne bàyyi leen ñooña kon tur borom bi moo ñu jox ndigal ñu ñaan ci jamono bi nga xam ne yonente baa ngi màkkatal mu karrama di tere mboolem ñi gëmut yàlla ñu bokkaale yàlla ak yeneen yàlla dafa am bis mu génn tàllal ay loxoom di ñaan naan yallaahu yaa rahmaan abu jahlin daal di koy gis daal di daw si leen xale bi nga xam ni mi ngi ñuy tere ñu ñaan ci ay yàlla yu bari mu ngi boole ñaari yàlla kon kàddu gi moom mën na daan rek bañ julli ba noppi. waaw bokk yi mu ngi leen di jéggulu yëkkatiwaat. sunu kàddu gannaaw bi nu jullee ba noppi sunu borom subhanahu wa dafa wax ni am na ay tur yu rafete ñaane nañu ko ci woo di ko ñaan li ñu bëgg waaye nanu bàyyi ñi nga xam ni dañuy jalgati tur yi sunu borom yi ndax lépp luñ ci jëf rekk ci ak yàq sunu borom dana leen ko fay kon ki ko yàqul tam jëf ko nag ci rafetal sunu borom dana ko fay yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu nekkee ci makka di tere mboolem yéefar yi ñu bokkaale yàlla benn bis mu jël ay loxoom tàllal ko di ñaan naan yàllaahu yaa rahmaan abu jaalin daal koy séen ni daw si leen xale bi nga xam ne mi ngi ñuy tere nu woo ci ñaari yàlla moom mi ngi woo ñaari yàlla ndax mi ngi naan yàllaahu yaa rahmaan sunu borom daal di aaya ba xul udu allah wa udu rahman ayyamma tadoo falo asmaul husna ma nga ci suratu isra laay téeméer ak fukk loolu mooy sababu nusool bi noonu la ko ibnu abbas indee kon gis nga ñaar yooyu yëpp bu ne tudd na fi turam yi wa huwa allahu alxaaliqu albaariu almusawiru lu wa asmaul husna ma nga ca suratu xasri moom it ca jeexal ba waaye gis nga ni muy tudde turam yooyu yëpp <coughs> lan mooy alxusna lan mooy alxusna bu ñu delloo ci alquran alxusna dafay tekki lu rafet dafay tekki aljanna ci saar yu bari nag dana ko indi bokk na ca inna allazina sabaqat lahum minna alxusna sabaqat ay wajabat lahum minna alxusna aljanna xool nga alxusna mi ngi tikki aljanna boo demaatee ci suratu yunus laayey vingt-cinq maa ngi fiy ñëwaat lii la siina ahsanul xusna aljana lay tekki lu ci bari boo ko xoolee rek aljana lay tekki ndax taar ba mu yor bokk na ci kon ay turam rafetaay moo tax boroom xam-xam yu bari wax ni waaw sunu boroom nag moo tuddee boppam turi rafet yooyu te xam ngeen ni sunu borom lu mu tànn ba tuddee ko boppam njëriñal neen la abdul fata at-tooqiyu nee na samma nafsahu bi asmaa'il xusna yàlla moo tuddee boppam tur yu rafet yooyu le nga dem ci alqurtubi mu ni summiyat bil xusna lima fiha min altaazimi walsawaabi alxurtubi nee na li tax ñu koy wax alxusna li ne ci tur yi ci ak màggal gu ñuy màggal yàlla ak li ci nekk ci ak pay ñeel kiy màggal yàlla ci turam yi ndax jamono boo jëlew tur yaa ngi bàkk yàlla yaa ngi koy màggal te bàkk gi ngay bàkk yàlla di ko màggal yaa ngi ci am tiyaaba ju dul jeex mu ne loolu moo tax ñu tuddee ko alxusna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni inna lillahi taala tisaatan wa tisiina asmaan miatan ila waxida man axsaha daxala aljanna aw li usni samaia fi lqulub yonent bi nee na alayhi salaatu yàlla am na juróom ñeent fukki tur ak juróom ñeent téeméer yu manqué benn koo xam ni mokkal nga juróom ñeent fukki ak juróom ñeent dinga dugg aljana wala nga rafet noo ko digloo ci xol yi yow mi ko mokkul ñu koy jikkar ngay teewlu teewlu ga ngay teewlu muy tàbbi sa xol dana la yóbbu aljana mooy aw li xusni samaiha fi lxulubi léeg-léeg nga dégg nag benn waay ni waaw moo na am na téeméer de bari na gaa yu lijjanti laaj téeméer bi man dañ ma koy laaj man leen yam leen fi yonent bi yam moo gën a xam yàlla moo gën a ragal yàlla moo gën a jigéen yàlla mu ni am na téeméer ak juróom-ñeent fukk am na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent téeméer yu manqué benn ginnaaw àndiwul benn bi bu ko lijjanti yamal fi mu yem kon gis nga tur yi boo koy bàkk nii ko sëriñ góor wootee ñu koy bàkk ak di ko jox ay nit ñu koy wérd lépp tuyaaba bu dul jeex bu kenn xamul fu mu toll moo tax tudd turu yàlla am na doole lool ci ki koy tudd am na doole lool ci ki koy diglu yonent bi ne alayhi salaatu wasalaam misaalum waa ji nga xam ni dafay tudd yàlla fu mu nekk ak ki dul tudd yàlla mi ngi mel ni ku dee ak kuy dund kon ñaar bu ñu dëkkee kii tudd yàlla kii tuddul yàlla kii tuddul yàlla mi ngi mel ni ku faatu kii tudd yàlla mi ngi mel ni kuy dund dem na ba ni kuy tudd yàlla ci biir nit ñu tuddul yàlla mi ngi mel ni garab gu naat gu meññ lépp mat mu ne ci biir ay garab yu dee waaw tudd yàlla ban daraja la ci nit ki mën a amee bari na latifatun lama addaat almalaikatu alfadla ala aadama alayhi salaam allamahu llahu jami al asmaa'i summa arada ala al malaikati fa qaala ambi'uuni bi asmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin falammaa ajazuu atlaqa allahu taala lisaana aadama alayhi salaam bi dikri al asmaa'i al maxluuqiin falammaa dakara aadama asmaaxal maxluqin zahara lawul fadlu ala al malaikati fa kayfa isa arafa mumin asmaa al xaaliq yi bi ñuy woote woo addaati mooy wax ju tegewul ci xam-xam ba ñuy woote woo naan noo gën aadama noo gën aadama suñu borom dajale mboolem turi mbindeef yépp daal di woo malayka yi ñu teew mu woo aadama ñu teew mu ni yéen malayka yi li ngeen wax ni yéen gën aadama bu dee dëgg ci yéen wax leen matur yi mbindeef yii ba ñu lottee ñoom malayka yi kenn waxu ko sunu borom fecci làmmeñu maam aadama mu tudd mbindeef yépp par benn par benn ngëneel daal feeñ ca aadama mu gën mboolem malayka yi mu ni waaw kon naka la ki gëm yàlla ba noppi di jullit ginnaaw tudd turu mbindeef moo mën a maye ngëneel waaw ku tudd turu ki bind mbindeef yi nag lan moo lay xañ ngëneel duñ mën a yem ndax tudd turu mbindeef day maye ngëneel de ndax aadama ca la gëne waaye ndigal la nag mooy tax am bi oni tax fii rek ci jitaay bii léeg-léeg nga gis waykat buy way nit mu may ko bari mu amee ci xiiwal di ko way rek foo dem di ko bàkk mu jola xiiwal kon booy tudd turi yàlla yi kenn du la ëpp xiiwal xiiwal yu bari ngay am bokk na ci tur yooyu kon muy asmaullahi taala alxusna terewuñu kenn nga ñaan yàlla nag ci ismu saati bi ak melo yi boo ci ñaan baax na xaala baadul aarifina kullu ismin min asmaa illaahi taala alxusna yublixuka maqaman min almaqamat wa ismuhu allah yublixuka ila jamici almaratibi walmaqamat fa innahu ismu saati l bi sifati l muqaddasati an jamii simaati l kenn ci nit yàlla yi mi ngi wax nii mboolem turi yàlla yi benn boo ci jël di ko sikkar wala ngay ñaan dana la àggale ci benn maqaama ci maqaama yi tur boo ci jël waaye boo jëlee allahu muy ismu saati bi dana la àggale ci mboolem daraja yi ak maqaama yi allahu allahu ci boppam mooy turu jëmmi yàlla bu la laaj yàlla allahu lay tikki allahu mooy lu amul beneen prix soo ne rabbu di nga naan buur bi waaye boo ne allah ni yàlla loolu la bëgg a jàngale fi mu ne allahu mooy turu jëmmi yàlla moom la ñu melal mboole melo yu sell yi weneen tur wudul allahu aw melo la ci allahu te allahu moom moom la sellal ci mboolem màndarga yi nga xam ni ñi sosoo ko moom màndarga yi nga xam ne ñi sosoo ko moom allahu moom la cee sell léegi nga ah diwoo ko lewet alxalim yàlla la dégg nga ko waaye doon diw ak allahu kenn ñi ko wax hmm? diw ak mën a yërëme diw ak mën a jéggale loo ci wax rek dañuy ñibbi ci tur yàlla waaye doon diw ak mën a allahu loolu mooy tegtale allahu mooy turi jëmmi yàlla wa jamiul asmaai raajaatun ilayhi tur yëpp dañuy del ci allahu bootu ci moom mu boot leen te wenn tur du boot allahu wa kullu ismin yakunu lahu sifatun wala yakunu wa sifatan li gayrihi tur woo tudd rek melo la ci allahu te allahu nekkul benn melo ci benn tur moo tax ñu ne wa man italaa ala maanaahu itla ala jamii maani al asmaa al soo xamee allahu dëgg dëgg dëgg mboolem turi biir yi ne ci moom di baatin yooyu xamaale nga leen allahu muy ismu saati bi mu ne wëf am xalaatal wëf am déggal xawluhu taala inna lillahi asmaul xusna fad'u biha xalaatal waaw xoolal inna lillahi nga wax yàlla am na asmaul xusna déggal ba nga ne inna lillahi yàlla nga tudd kon yàlla moom moo moom asmaul xusna mooy tudd ci des ndax yéen a ngi koy dégg yaa ngi ni lillahi mulku samawaati dégg nga ko ah lillahi mulku samawaati lillahi asmaul usna yàlla moo moom turi rafet yi muy jëmmi yàlla ji turan ci moom moo tax shaabi radiyallahu anhu nee na ismullahi l asam yàllaahu yàlla wi gën a màgg mooy allaahu jaabir radiyallahu anhu nee ismullahi al-a'zam wallahu alaa tara annahu fi jamii al-quraan yabda'u bi qabla kulli ismin jaabir ni allahu mooy tur bi gën a màgg xanaa demoo ci alxuraan nga xool moom la ñuy jiital ci mboolem tur yépp door ko tudd jàppal boo nee bismillahi arrahmani arrahim dégg nga allahu fa ne te dañ laa diggal looy def nga nga def ca basmala bismillahi mu jiitu nga doon ni arrahman arrahim mu dem yaa nga ni allahu rabbul alamin dégg ko sol na mbubb ma yeneen tur daa mel ni ay mbubb la bu yàlla bëggee liggéey dara mu sol mbubb moom ma liggéey ca dara allahu nga ne xam mu ne rabbul alamin allahu xaaliqu kulli shay'in dégg nga ko xaaliq tur la musal mu moom bu bind lépp allahu xaaliqu kulli shay'in boo ko toppee ñu inna allaha xafurun rahim inna allaha samiun alim dégg nga ko mooy jiitu tur yëpp mooy jiitu di jàll loolu mooy wane ni allah mooy ismu zaati mooy tur jëmmi yàlla dëgg dëgg dëgg moo tax booy rey ñu la waxal bisimilah booy lekk waxal bisimilah boo noppee nga ni alhamdulilah lépp ngi dellu ci yàlla hmm? dangay tàggu yàlla boo demee ci benn téere Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ngay wax ni isaa aratallah fi kulli shay'in wahaba laka xayra kulli shay'in waqaaka dorra kulli shay'in li annahu xaaliqu kulli shay'in isa aratallaa mooy bismillah looy def jiitale bismillah isa aratallaa fi kulli shay'in wahaba laka xayra kulli shay'in waaye nag wa waqaaka dorra kulli shay'in looy def boo ca jiitoo yàlla juble ko ca jëkk koo tudd yàlla may la aw yiw ca lépp la ngay def fegal la lépp lay lore ca la ngay def kon allahu mooy ismu saati booy julli booy noddu allahu akbar booy liqaam allahu akibar booy saba subhanallah walhamdulillah bismillahi lazi laa yaduru ma ismi shay'un booy seede wa huwa alamul iman laa yatimu illa bihi allahu mooy màndargam gëm shahidallahu ashhadu an laa ilaha illallah beneen tur boo seedee budul allahu sa ngëm du mën a mat dégg nga ko xanaa kon léegi na ngeen ma mën a nangul allahu kon mooy turu jëmmi yàlla loolu nag moom la sëñ góor mi di liggéey la cay topp mooy dikar tuuti fadkuruu nii adkurukum suratu baqara laayey 152 te la toll fàttaliku leen ma yéen mbindeef yi ma gëm adkurukum bul ni ma fàttaliku leen déedéet am na ñu ko dax yàlla fàttewul ah wa ma kaana rabbuka nasiya ca mareem boo jàngee loolu boo waxee li kër kon yaa koy tuumal ah fadkuruni bi taati fàttaliku leen ma ci topp lii ma leen digal adkurukum bil jannati ma jox leen aljana ma tudd seeni tur ci jox leen aljana fadkur adkuruni fadkuruni adkurukum fadkuruni fi raqa'i adkurukum fi shiddati bu lépp yombee bu leen ma fàtte na ngeen ma fàttaliku bu jafeñ-jafeñ dikkeen ma yombalaat leen waaw fàttaliku mooy lan yonent bee ko jàngale nag alayhi salaatu wasalaam an nabii sallallahu alayhi wa sallam an rabbi azza wa laa yadkur nii abdin laa yadkur nii abdun fi nafsihi illaa sakartuhu fi malain min malaikati dégg nga yàlla da lay tudd moom yonent bi ne na salaatu wasalaam yàlla nee na sama jaam du wéet di ma di ma yàlla di ma tudd lu dul ni man yàlla danaa ko tudd ci mbooloom malayka yi boo dee tuddu yàlla yàlla dajalee malayka yëpp ni diw doomu diw ak diw